ak fii jamono toll. waratuñoo toog rek di xaar. te Touba lu fa war a am Serigne Touba ñaan nañu fexe ba li Serigne Touba ñaan boroomam ci Touba ñu bokk ci ñi koy amal. te ñun Touba rek la ñuy bége. nañu jaayante ak Serigne Touba te sax ci weer bu nekk ñu joxe 1000 francs maanaam ñaari téeméer rek par weer. yajuruni la xuyurin képp ku bëgg Serigne Touba. mag ak ndaw góor ak jigéen. képp kuy bëggee Serigne Touba. dañu fexe bu weer bi deeyee rek. dana joxe 1000 francs ngir Serigne Touba ca Touba. même xale bu ndaw bu ñaan fukki ni Makka ak Medina. ren gii dugg Touba ba génn. te dagguma sama yi tuubaa ca kanam xalaatuma ko. màggalu ren gi ñun ak sunu njaboot nan fexe ba jaayante Touba ca kanam. màggalu ren gi man moom feddali ci Touba kanam. màggalu ren ci kanam dafa war a bokk ci li ñuy santalee Serigne Touba sunu borom ak njukkalee ko Serigne Touba. sunu ko gëmee rek lépp mën nañ koo def. ak ñii di ñëw yëpp nag màggal gi ci biir nawet lay doon incha ndax dëkk bii di Touba li mu soxla bari na lool. te dañoo wara gëm ni ñun rek ñoko ko fa def. ndax kon dañoo wara tok rek di xaar. a ah, déedéet. jog leen. kon nak jog leen. ku dem ñu dem ku dem ñu and ak Serigne muntaha Mbacké dem. jog leen. yow mi dëkk Touba yow mi magal si yow mi bëggoon magal si te am ngant na 1000 francs par mois di sax dak mbokki yi 1000 francs la lu tuti la way ak man lu bari. lu mu bax bax lu mu yomb yomb. balaa gën a mën a am njariñ day doon lu sax dàkk weer wu nekk 1000 francs ngir Touba gën a mën a jëm ca kanam. wajalilaayi maskani Touba misras mi abijaayi xayri man abaat